mbokk yi ñuy teewlu ci H24 actu nuyu nañ leen di leen di wax la ngeen di abonné waaye itam di like vidéo yi Moustapha Diop mi nga xamante ne journaliste la ci Walf di chroniqueur moom nag daal dina yëkkati ay kàddu jëmale ko ci dikkuk président Macky Sall bi nga xamante ne euh, annoncé nañ ko ci Sénégal xam la ne que ñëw ngir battre campagne moom nag yëkkati na ci ay kàddu waaye itam. daal di xamle ne kat moom loolu njortu ko benn yoon ndax kat kii di Macky Sall li nga xamante ne daal di nañ koy subir moom ak jabaram Marème Faye sal ci aéroport ba nga xamante ne dajee woon nañ fa ak femme bu tudd Aïssa Camara mu daal di jàppante loolu kat bu ñëwee ci Sénégal ci lay gën a rawee waaye itam mën naa am risque mu ñëw ba pare. ñu daal di eh, koy téye ba du delluwaat maanaam jël ay vision yoo xamante ne si ne dugg bi mën naa yomb waaye nag delluwaat bi du mën a am ndax kat li koy xaar fii dafa bëri ndax kat moom Macky Sall dafa war a rendre compte ci li nga xamante ne si ne amoon na ci ak nguuram waaye itam ay bakkan yoo xamante ne si ne daal dinañ fiy faatu ak ñoo xam ne ci lañ jaaree daal di ñàkk seeni cër loolu lépp nekk loo xam ne. jàpp na ne kii di Macky Sall bu ko dajalee def ci ay jàngat du teg tànkam fii ci Sénégal donte moo nekk tête de liste war a battre campagne loolu nag moom jàpp na ne Macky Sall amut waaye di man fee ñëw ginnaaw li nga xamante ne si ne kat daal nañ fi am waay itam ak yi nga xamante ne si ne ñu ngi koy ruumandaat ngir kat daal di koy teg loxo loolu di kàddu yi Moustapha Diop waay itam. yëkkati ay kàddu it jëmale ko ci li nga xamante ne si ne moom moo di euh, ñii di waa APR ak euh, waa euh, PDS ñu di ko wax takk wàllu lool nag nekk loo xam ne moom Moustapha Diop daal dina xam le ne kat li nga xamante ne si ne moo leen tax di jug moom moo di xam nañ ne ñi nga xamante ne si ne moo di waa Pastef les patriotes bu ñu jëlee li nga xamante ne si moo di majorité bi ñoom risque la ci ñoom ndax kat mën nañoo def li nga xam ne moom moo di taxawal haute cour de justice waaye itam ak euh, li nga xamante ne si ne mën nañ cee sukkandiku daal di euh, topp kii di Macky Sall ak bépp ministre boo xamante ne si ne daal nay euh, nekkoon ci ñum looloo tax ñu daal di taxaw kut ko kut nga ngir daal di bloqué nguur gi ba du mën a euh, def li nga xamante ne si moo di ay réforme yi nga xam ne daal dina koy dig sénégalais yi waaye itam loolu sénégalais yi ñoo ci war a am ab taxawaay xam le ne kat bu fekkente ne jox nañ leen ci opposition bi majorité mën nañoo indi ab blocage ci diggante li nga xamante ne si ne moo di restriction yi waaye itam réew mi itam euh, du dem fa nga xamante ne si ne moom lañ koy séentu ci nguurug président Bassirou Diomaye Faye waay itam ci ay crise eh, institutionnelle la ñu nekk waaye itam nekk na loo xam ne it moom Moustapha Diop daal na ci yëkkati ay kàddu xam ne ne kat kii di Pastef am na chance ngir kat daal di am majorité ci assemblée nationale ndax kat lu tolloog eh, cent douze député yi nga xamante ne si ci eh, département yi lay génnee loolu kat département yi. raw gàddu lay doon bu fekkente ne voix yi nga xam ne opposition bi dañ ko daal di séddoo day tasaaro waaye itam voix yi nga xamante ne si ne moom la euh, parti au pouvoir du Pastef am yooyu kat dañ koy mën a euh, complété ngir kat daal di jiitu euh, ci département yi ñi nga xamante ne si ne ñoo di opposition bi boo dajalee seeni voix loolu nag nekk loo xam ne moom Moussa Diop daan ne xam le ne kat élection yi risque la ci opposition bi waaye itam ñi nga xamante ne si ñoom ñoo di waa coalition euh, euh, ànd sàmm sa kàddu yooyu itam ñoom li nga xamante ne si ne noonu lañ demee ci élection yi risque la ci ñoom bu fekkente ne li nga xamante ne si ne daal nañ koy def ngir jiital Barthélémy Dias mu wóor leen ne am na ab condamnation boo xamante ne si bu teg woon la ci moom waaye itam conseil constitutionnel bu fekkente ne topp na li nga xamante ne si moo di logique bi day invalider liste boobu waaye itam invalider candidature Barthélemy Dias ndax kat bu fekkente ne dañ ko daanoon daan boo xam ne dafa définitif mën naa tax du bokk ci ay élection waaye itam du nekk électeur du nekk candidat loolu nekk kàddu yi nga xam ne Moustapha Diop yëkkati na ko ginnaaw ba nga xam ne daal dinay ñaawlu Macky Sall ak taxawaay bi nga xam ne amee na ko waaye itam xam le ne kat moom hmm, li nga xamante ne si moom la leen ci sénégalais di wax ne moom démissionné wu dañ koo dàq daf koy daal di gëm tey it Macky Sall ba mu jógee fii ci réew mi dafa gëm la woon ne nit ñi ne doyal na sëkk ci réew mi waaye itam bëggatu fi dara ndaxte itam Eh, daal di def li nga xamante ne seeni moom moo di eh, passation de service rek daal di jël ab volam daal di dem yoonam li nga xamante ne it moom moo fi soppeekuwaat ba Macky Sall bëgg daal di ñëwaat Sénégal ngir ko daal di sóob ay yoxoom ci politique bu Sénégal anam gi nga xamante ne seeni doxalee na ko anam gu ñaaw a ñaaw la waaye itam moom Macky Sall itam li nga xamante ne seeni def na ko fi loolu kat dignité ak ngor wóoru ko woon a may mu jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoom ñoo di population bi di leen dagaan seen delluwaat waaye itam di leen laaj kat ngir ñu jox ko uh, ca fa nga xam ne moo di pencum ndawi réew ma waaye tam ñi nga xamante ne si ne ñoom ñoo di population bi ñu bëree bëri dañoo nekkoon victime ci li nga xam ne moom moo di nguuru ko président Macky Sall ginnaaw bi nga xam ne daal dina koy yor douze ans waaye itam ak ay autorités yoo xamante ne si ne dañ fee nekk waaye itam respecté wuñ Sénégalais benn yoon ñu leen di tudd ci ak luubal loolu kat nekk na loo xam ne rek war naa doy campagne yi nga xamante ñoom ñoo di eh, seeni eh, alliés yi nga xamante ne si ne ñoo war a jàkkaarloog ñoom Macky Sall ñooñu waaye itam ak lenn ci opposition bi nga xamante ne si ne jàpp nañ ne kat ñoom seen waxi démb dafa warook seen waxi tey ba démb ñu doon diingat Macky Sall ni ki tey jii nii ñoom ñoo ànd moom ak li nga xamante ne si def na ko fi waay itam ak manque le respect nga xam ne jàpp nañ ne daal na koy féetewoo woon ci Sénégal yi waaye itam ak wax yoo xamante ne si ne dafa waroog li nga xamante ne si ne mooy euh, un homme d'état boo xamante ne si ne fonk na li nga xam ne moo di euh, république am waaye itam moom it daal dina yëkkati ay kaddu daal koy jëmale ci ki nga xamante ne moom moo di Abdoulaye Wade différence bi nga xamante ne si ne am na ko ak Macky Sall moo di eh, li nga xamante ne si ne Abdoulaye Wade am na ko moom mooy ginnaaw bi nga xam ne ñàkkoon na élection yi dafa daal di taxawee taxawaay koo xamante ne si ne ku bëgg réew mi waaye itam nangu li nga xam ne réewam daal dina koy décider indiwut benn blocage jëmee ko ci régime mu Macky Sall waaye itam eh, daal koy soutenir jàppale ko conseil ay ñi nga xam xamante ne si nañ ñoo di waa PDS ngir kan ñu xam ne indi na ko fa waaye jàppale ko ci ay conseil ak lépp loo xamante ne si ne sàkku na ko ci ñoom waaye nag loolu liñ ci neemi moo di bu ñu fàttalikoo kii di Abdoulaye Wade bi nga xam ne namm naa ñëw fii ci diwaanu euh, Sénégal daal di euh, jóge fa nga xam ne moo di France kii di Macky Sall daf ko lànkaloon mu wàcc ci Sénégal ba nga xamante ne si ne Mauritanie la mujj wàcc lool nag nekk loo xam ne kii di Macky na fa ak Abdoulaye mi nga xam ne moom la fi wuutu woon mu nekkoon président de la république waaye itam daat koy manque de respect mu nekk loo xamante ne it kii di Macky Sall daat na fay jaar ab Abdoulaye Wade kon moom li nga xamante ne si ne moom moo ko wuutaleeg Abdoulaye Wade daal dinay bëri lool waaye itam nekk na koo xam ne mën nañoo wax ne du nitu kàddu bu fekkente ne sukkandiku nañ ci li mu waxoon ba muy quitté réew mi ak ginnaaw ba situation bi nga xamante ne si ne na waaye dugal ci politique amaana euh, ki nga xamante ne si ne moo di Karim Wade ak injustice yi nga xam ne dundoon na ko ci jamonoy Macky Sall loolu xëy na moo ko sóobaat ci politique waaye nag kii di Macky Sall moom moom dafa daal di jug kut kookut ngir kat ñi nga xamante ne si ne dañ ko fee wuutu ci réewum Sénégal Sénégal daal di fay jaaree est-ce nekk loo xam ne euh, ginnaaw biñ ci defee suñu jàngat kii di Moustapha Diop bi daal dina ci yëkkati ab jàngatam muy li nga xamante ne si ne moom lañ leen jëkk digal dégtal di leen wax ne ngeen di wéy di abonné waaye itam di like vidéo yi di ko partager ngeen yëpp di ci man di jot